ak sa xarit Ousmane Sonko yéen a ngi déggante. waaw gën ngeen déggante yàgg na. maître Tall yéen a ngi déggante sa rakk. maître Tall euh, gëj nañ déggante peut-être juste avant bi mu defee sorteem boobu nga xam ni bi mu ko defee waa waa Mbour yëpp dañoo jommi nag sa dëgg-dëgg maître Tall euh, du sama rakk de sama doom la. ah nee nga yow taawam sa sa taaw la. mooy sama taaw sa papam moo ko wax loolu papam si lal bi mu génnee àdduna yal na ko yàlla xare àjjana si la téye loo xam ne ko Ablaye Cheikh Issa du sa mag sa bàyyi la te na nga fexe si àdduna ba dara du bu ko metti jóge si yow te loolu bu ko waxee dafa am lu tax bi mu amee bac premier tànkam à Dakar sama kër la immeuble des eaux studio laa amoon chambre ak salon yor sama jabar moom muy fanaan ci salon bi may fanaan ci chambre bi mag sama soxna ba ñu dem fay saal ba ma takk takkal ko jabar moom ak jabaram sama biir kër ba mu am doom ma dem ngénte ju dem papam ne s'est pas déplacé dana papam si Issa nga fa man maa dem tudd doom ji maa def lépp c'est-à-dire suñu relation du relation boo xam ne bu ordinaire la. mais est-ce du du relation bu ordinaire même sonk bii nii mu toog. si sama kër la ko xamee donc ma doon ñëw sama kër fekk fa Ablaye Ablaye di ñu attaayaal wax na ko ak ñuy ànd di dem tool ak yu demee noonu fa la ko xamee donc je ne suis pas man que mu far fu ko neex mais bii passé nii ce qui man daf ma daf ma bett parce que jàpp naa ne mën nga far fu nekk Barthélemy Dias ak Jean-Paul Dias ñoo ko def naa kër en tout cas papa mhm. doom la mhm. mais politique mën nañ ko def bu ba mu rafet ba mu rafet c'est-à-dire euh, man jour boobu luñ ma nettali lu ma fekke la fañ nekkoon ak kër ñu Ablaye mat na 300 mètres au moins 300 mètres te xale yi maanaam amul kenn kuñ si brutalisé dañ leen a téye nangu pëne yi nangu seen euh, essence ak ay masque à yi ñu yoroon ñu nangu ko. yaa ngi dégg. Mhm. ñu ne dañ leen yóbbu police kenn si ñoom ne euh, rakk Ablaye Tall da see bokk. ñu ne ko nañ leen bàyyi ñu ñibbi c'est-à-dire moom xale yi dañ ko see defal teraanga après sensibiliser leen nag ne leen tali hôpital bii dafa metti woon ba ambulance du fi jaar dara du fi jaar donc ñu góor góorgóorlu ba defar ko waa Mbuur yëpp di ko sagoo booy fa taalee ay pneu bu nawet bi joxee dafay yàqu kon li ngeen li dimbali leen ñu mhm. euh, fii bu fi kenn taalati pneu ñu départ man maa def sensibilisation boobu dem sama bureau dem sama signature bi ma ñibbisee fii laa dégg si rajo bi muy wax du muy wax ma damaa jommi ma oo oh, commissaire de police laaj ko mënoo ñoom yëg nañ ko mais biñ nga jógee déployé wu dem kër ñoo Ablaye dana leen mais fii dara xew te yéen yéen a ngi mbuur boo leen demoon léegi si environnement au quartier boobu ngeen laaj ndax fii dara xewoon na fi jour boobu ñëpp à l'unanimité dañ leen wax foofu dara xew foon kenn jaar fa on a à 300 mètres de chez te xale yi dañoo nangu pneu rek nangu seen arsenal bi ñu doon taale. d'accord bàyyi la ñu def. moom wax na yow aussi am andi nga benn réponse mu waxaat ci plateau bi di salon d'honneur sur Walf TV jamono ji entre papa ak doom est-ce que waru leen toog waxtaan. non non dama koy ñaanal rek dama koy ñaanal parce que moom bi may wax sax man waxuma ak moom capacité bi nekk ci Sonko. si yàq xolu xale yi si yàq xelu xale yi si jële leen si mu baax si jële leen si si leer yóbbu leen si lëndam capacité boobu man la pointe di doigt c'est-à-dire seetal ñi ànd ak sonk rek ak ak ni mu leen di def mhm. c'est-à-dire ak seen langage na leen taal na leen yàqi na leen jaxase saaga saaga kër diine yi capacité boobu man moom laa joxoon mais Ablaye sama doom la c'est-à-dire ak mu mu menti mel boo demee Dakar si fonction publique bi ñëpp rakku Cheikh Issa lañ koy xoole mbuur fii rakku Cheikh Issa wala doomu Cheikh Issa lañ koy xoole donc dama koy ñaanal mhm. yàlla génn ko ci lëndëm gii mu nekk indi ko si leer maanaam eh, yàq bi ñu yàq xolom yàq xelam ba muy xalaate léegi nii muy xalaatee lay ñaan sunu borom rek si barke weeru koor gi mu génn ko ci loolu yàlla musal ko si seytaane